am na ay yoon yoo xam ni bu toll si téeméer ak juróom fukk dañ ko ubbi ngir jur gi wala doomu aadama yi mën di si jaar bañ di traversé autoroute maa ñaan sëriñ bi mu joxe ndigal si ñu moytu di dagg grillage yi bu ñu doon xalaat sax ndax duñ ci def courant bu nekk nag courant buy buy ree wala buy gaañe waaye dana tax boo ko laalee di nga teggi sa loxo pour ñu bañ ci dagg grillage bi ndax bu ñu daggee grillage bi jur gi dana jaar jur gi dana si jaar te bu si jaaree dana yéeg ci tali bi te ku wax autoroute xam ne ay xel lañ ci daw loolu dana indi ay musiba ak ay lor kon suñu amee autorité yu mel nii nag dañu war a changer tam suñu ay comportement ak suñu façon ni ñuy dawalee suñu façon bi war a nekkee ci kaw tali loolu dafa am solo waaye yoon bi xam nañ ne dafay dem rëy lool autoroute bi lu mu bees bees lu mu gaaw gaaw xam naa ni fii ak yu néew ila Touba dina fees dell kon prévoir nañu nu ñu ko yaatalee wala mu nekk deux fois deux ci kanam bu ko trafic bi laajee dinañ ko mën def deux fois trois loolu mooy ñetti ligne bi ci dem bi si loolu yëpp boole nañ ko ci liggéey Ila Touba tax na ci biir jamono ji ñu liggéey lu toll si ñeenti junni liggéey nañ ci programme boobu la feyeeku nañu lu toll si ñaar fukki ci ay salaire yoo xam ne ay payeur lañu fay doomu réew mi nekk na lu am solo ci koom-koom bi. waaye jamono ji nga xam ne liggéey bi pare na du tere pour gestion bi lu toll si ñeenti téeméer ak juróom fukki nit daañu mën liggéey ci autoroute bi ñii dina nekk si péage ñii nekk ci yeneen liggéey pour que mu mën a kanam.